salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku benn bokk yaakaar salaamaaleykum mbokku département Pikine ay yëkkati kàddu nag ah, di wax ne président Macky sàll maa ngi ñaan nag képp koo xam ne njabootu président Macky Sall rek nga toog te déglu ko am na ñoo xam ne dañoo yàqante seen àdduna waaye buñu xalaatee ñoom lan lañ def ci réew mi ci euh, ëttu diine ci Touba ci Tiwaawan ndax dañ fa daan dem ndax dañ daan jokkook ñoom fan lañ féete ak lan lañ def ci dëkk bi ñoo xam ne tey bu nekkutoon président Macky Sall kenn du leen dégg ci turu ministre waaye li ñu naan président Macky Sall ginaawam dafa tàng ku mu boot rek nga matt ko ñu xamee Mimi Touré président moo tax ma xam ko ndax bu dee opposition ba ñu nekkoon ñu fi gën a sonn ñu ko gën a. kañ woo amoo majorité yow nga ne da ngay nekk tëdd na ngay nekk président assemblée nationale bun Abdoulaye Dione ba ñu demee 2017 indi ay député yu bari on avait la majorité largement nag gañe ko daw kilomètres yu ëpp yi nga daw yow 4175 kilomètres moom 6000 la daw. est-ce que ba ko président Macky Sall bàyyi defee tëdd liste def ko président assemblée nationale daa tax mu wax nit da ngay gore. yow foo dem fu ne mbooloo mu dafa topp du sa mbooloo de mbooloowu président Macky Sall la koo xam ne rek authentique nga yàgg ci parti bi Mimi Touré musulaa jàppale mus wax ak yow lu dul ñëwal ànd ak man nga yaakaar ne ñun woye dinañ ba di la topp di fi bàyyi Macky Sall képp ku nekk ci APR na nga am sa fulla ak sa fayda dégg nga de parce que nag produit président la waaye nag yorul jikkoy président président Macky Sall dafa nekkoon ci opposition liggéey ci Sénégal loo xam ne fu ñu mësaan a dem courant bi ñu ne Macky Sall ba mu nekkee premier ministre ndox mi ba ñu ne Macky Sall ba mu nekkee premier ministre. Boun Abdallah Dionne gënoo ko xam Macky gënoo koo yàgg ak président xaritam la woon démb ak barki démb 2017 yow da ngaa nekk tête de liste indil ñu coow nag problème 82 député ngay naan da ngay nekk tête de liste yow gagné woo amoo majorité. yow nga ne da ngay nekk tëdd na ngay nekk président assemblée nationale Boun Abdallah Dionne demee 2017 indi ay député boo mën yow xam nga ne kenn du la fekk sa hôtel ba nga nekk kon war nga war a xoolaat sa bopp su doon yow dañ laa bëgg bu ñu la mobiliser lee ba pare responsable yëpp ay dem ca hôtel ba fekk amoo foo ma sa dem ñu mobiliser la nga fanaan ci dëkk ba ñu jël ñu jël nga ñu ñëw di jël audience ak yow parce que kenn gëmu la képp ku mobiliser yow taxoo ñu mobiliser Macky Sall la tax ñu mobiliser Macky la tax moom lebal na la teraanga nag nga bëgg koo fay ay wor parce que ñun gëm ñu ku dul Macky Sall muy jeunes yi muy femmes muy sage yi Macky la ñu gëm ndax def na ci Sénégal loo xamante ne war nañ koo gën a jàppale ndax ñëpp xamoon nañ 2012 fi Sénégal toll woon ak économie Sénégal fu mu toll woon te ñëpp xam nañ ne bu nekkutoon crise yi fi jaar tey jii Sénégal feneen lay nekkul dul fi mu toll nii kon nag Macky Sall dafa liggéey ñëpp gis ko d'accord ci politique am ànd ak moom di ko jàppale